kitaabu mabaadi tasawufi li mooy téereb tàmbalikaayu tasawuf wa taxarufi ak way gindee xam yàlla maanaam dafa jeexal mbirum tawxiid ak fiq li nga xam ne moo aju ci wàllu tasawuf nag kon moom lay jeexale téere bi mu ne tasawuf moom daa yaatu waaye nag ñu waxal la tàmbalikaay maanaam mbir yi nga xam ne booy tàmbali tasawuf moom ngay njëkk jàng ku wax itam ci lay jëkk wax waaw ah, nee na kon yooyu moom lañ bëgg jëkkee wa tawbatun tuub min kulli zambin ci bépp bàkkaar yu ju turam def na ko fàggu te jibu dana war fawroon ci lu gaaw ci lu mën di doon nee na mbirum tasawuf mooy tuub loo xam ne weesoon nga ko te yàlla gërëmu ko danga koy tuub tuub ku dogu bu sell te bañ caa jéem caa bañ a dellu lu dox sa digganteeg doomi aadama itam ci xeeti àq nga taxaw temm ci delloo ko ba mat sëkk mbaa nga jégalu ko ba wàcc la moo tax mu ne tuub bépp bàkkaar lu war la te des ko war a gaaw waris ko yeexe na xamuñu kañ la faatu di dikk moo hmm, xam nag bàkkaar ko day bu mag wala day bu ndaw hmm. wax ya moom tuub googu nag ànd na dama mooy réccu bi shartul iqlaahi ci sartub buddiku ba ngay wax buddiku waaye mooy bàyyi mooy bàyyi bàkkaar ba wa nafiyul israari ak dàq lor ga ci bàkkaar nee na tuub nag moom daa amee sart ba ci njëkk mooy nga rëccu mooy la nga weesu te yàlla gërëmu ko da ngay rëccu lool lu taxoon nga def ko nga xam woon tey jii moom doo ko def rëccu nga lool lu taxoon nga def ko te mu lu neexul yàlla tey nga daal koy bàyyi fa saasa waaye boo ne maa ngi tuub ba noppi nag léegi nekk ca day mel ne kon kuy reetaan yàlla wala yettalaafa na dabaatal mun ki nan aji jàppandi das tixfaari mbir mi boroom ak sàkku njëgal nag lépp loo xam ne da nga ko weesu woon te dabaatal ko wérut ni ki bu dee julli yoo sàggane woon mbaa xeetu koor mbaa dara ci xeet yi warte fi diine yi loo xam ne mun ba tey fay ko wérut nga taxaw temm ci fay ko te jéggalu yéexe ga nga ko yéexe ba léegi ñaan yàlla nangul la ko te jéggal la itam yéexe ga waxaasilu taqwa dëgg-dëggi ragal yàlla ijtinaabun mooy teet ak tere moom ci saalun ak topp ndigal fii zaahirin ci lu feeñ wa baatin ak ci lu nëbbu bisaa ci lii tunaalu la dee fi ko amee nee dëgg-dëgg ragal yàlla moom bu la ko laajee neel mooy bàyyi lépp lu ñu tere ci biir ak biti te topp lépp lu ñu digle kem sa kàttan ci biir ak biti boo boolee topp ndigal bàyyi topp biir ak rek loolu kon moo dëgg dëgg daal yàlla ak te dikk na al aqsa bi xaaja xaqat ci dëgg arbaxatan mu ñuy ñeent wax wax ya te ñoom sabilu man faxati ñoo di yoonu njëriñ lu saalik ñun abi soobu yoon yàlla kon maanaa di gën a ragal yàlla def la digle te boole ci ni ci biiram bëtti mu ne ko loolu boo ko dee seet ñeenti xaaj lay doon ndax boo nee topp lu ñu ci biir ak topp lu ñu ci bitti muy ñaar boo nee bàyyi la ñu tere ci biir ak bàyyi la ñu tere ci bitti kon muy ñaar ba boole yaari ñaar muy ñeent moo tax mu ne kon loolu ñeent la yent yooyu nag nee na ku bëgg a jariñu aw ci yoonu yàlla ci yent yooyu rek ngay aw mu daal di waxal nag léegi cër yi ak ni nga ko war a sàmmee bañ caa mooy yàlla mu tàmbalee ci bët yaxub dana damm ay na xoo bëtam anil maxaarim yi walis way yi nee say bët danga koy bu baax bañ cee xool dara loo xam ne loo warta xool la yëkku fu dana fekk samxaxoo noppam ba anil ma aasim walis bakkaar yi sab nopp danga ko téye bu baax di ci moytoo déglu dara loo xam ne lu aay la loo warta déglu misaal nag ka xëybati ni ki jëw namimatin ak ramaaj zorin ak seeraneen kadibin ak fen waaw nee sa nopp da ci moytu déglu jëw wala rambaaj wala loo xam ne kooku koy seere te wóoru ko ak luy nuru ak ak fen lépp na nga ko moytu déglu ci say nopp kon nag lisaanu foo ci bàyyi la nga xam ne julli ba bijjeef na ko wala tuddeef na ko nee na duñ ne yee na nga ko moytu déglu ci say nopp kon làmmiñ wa rawante na nga di ko ci wax kon soo làmmiñ moom na nga bu baax di ci wax lu ñu jëw mbaa rambaaj mbaa seere loo xamut mbaa loo xam ne nga ko waxte bukkut ak laam yaxfazu dana wattu battanakoo biiram ba minal ci aji araam biir ci cër yi war a sàmm nga sàmm kon nga sàmm sa ko dara loo xam ne loo ci war la yettu ko dana bàyyi maa lépp loo xam ne chub bi xa lëntaleef na ko bi ihtimaamin ci yittewoo nee na sa nga koy sàmm ci lu araam li la wóor ak sax loo xam ne laa lënt ba xam araam na araamut loolu sax da nga koy moytu di ko sori ndax boo jegee la lënt boo tuul léegi mu yóbbu la ci la araam ba dana wattu farjaxoo am payam ko wax ne am payam waaye dañ ci jubli ab sawukaayam maanaam na sàmm ab sawukaayam muy awraam ba bañ ci yàlla awraam ji lépp lu ko ci yàlla aaye muy njaaloo ba leneen lu koy nuru ni feeñal ko fu mu ko war feeñal ak yépp lu koy nuru yépp na koy sàmm wa yattaqi te muy wattandiku ashahida yàlla mi aji seere lépp fil batshi ci ngëb gi day dellu ci loxo wa sax yi ak dox ga li man jëm ci li ñu tere yëridu loolu dana ko nam dox gi day dellu ci tànk anam daa bokk ci cër yi say loxo ak say tànk mu ne say loxo na nga ci wattoo laal wala ngëb loo xam ne sañoo ko say tànk da ko wattoo tàllal baa nga di ko dox jëme ko ci lu wut la ruux yi fi tam yu taxawal al umura mbir ya xataa yaalama ba dana xam maa la nga xam ne allahu yàlla xat xakkama àtte na fii la nit ñoom mbir ya bi ci ca loolee nee na itam mbir mu nekk mu moom diine mbaa mu moom àdduna na nga taxaw temm na nga ca teey maanaam bu ca dugg te xamoo la ca lislaam wax ndax araam la nga jékki-jékki song am mbir te xamoo la ci lislaam wax muy mbirum àdduna muy mbirum diine su fekkee xamoo ko da nga koy laaj koo xam ne maandu na wóolu na nga ci wax rek nga jàpp ko yu tax laabal alxal ba xol ba li ma riwaayu ci gistal wa xasadin ak kañaan xojjubin ak aaw ak jëpp jàngoro nee na nag boo weesoo cëri saahir yi boo xam ne bu laabal la ci yi mu wax ne yàlla taxut wala kañaan kañaan mooy kenn am xéwal nga di ko yéene mu ñàkk ko boo ci boole waxee ko mbaa jëfe ko mu araam bu fekkee yéene ko ci sa xol nag waaye na wax dëgg yàlla boo sañoon te du yéene ko ko sa xol bi rek nga du xam noo su boobaa ko jàppee xujj bu aaw nag mooy naw sa jëf mbaa gis sa bopp ci genn wet loo jëf lu bari bari da nga ko war a xeeb xam ne su digganteeg sa borom moom loo ko jëfal rek la nga ko warlu su digganteeg moom ëpp na ko matu ci dara jëpp jàngoro joo xam ne rek sikk lay doon ci xol rek moom na nga ko moytu bu baax a faalam na nga xam nag ne bi anna asla dil afaati ci naka cosaanal yile gàkk xubur riyaasati mooy sopp kilifteef ci àdduna wa taraful aati ak wàcc aji dikk ja maanaam fàtte alaaxira daa wax ne na wóor na nag li ëpp ci li yàq xol maanaam xeeti jàngoro xol yi nga xam ne yàqal nit lislaamam da koy yàqal ngërëmal yàlla mooy rek bëgg àdduna ak fàtte àllaaxira su bëggee àdduna bëgg ci jiite ñu koy topp bëgg ci kilifteef fàtte àllaaxira li ëpp ci jàngoro xol yi looloo koy sos rasul xataaya bopp ñaawteef ya huwa moom xubbul xaajilati moo di sopp àdduna lay sa dawaa déet saafar sa nag déet saafara sa illaa fil ibtiraari ndare mu nekk ci loru la jëm ci yàlla nee na li nga xam ne daal mooy cosaan ñoo ñaawteef yépp rek mooy bëgg àdduna bëgg àdduna moom daa mel ne dañoo jël ñaawteef yépp teg ko ci benn nit def bëgg àddina moom muy caabeem ñu jël mboolem yu baax yi teg ko ci benn néeg maanaam ñu jël mboolem teg ko ci benn néeg ba noppi nag def dëddu àdduna muy caabeem mu ne la yi mu la wax yépp dara gaawul ca faj ga dara ak fajam lu may daal di dellu ci yàlla ñaan ko rek mu musal la ci waaw ndax lépp lépp rek moom ci cosaan bi yàlla ndax lu nekk ci nit ak yàlla ko ci def kon nag nee na wóoru ci yàlla ñaan ko mu saafaral la mboolem xeeti jàngoro yi te yombale lu mbir yi loolu rek nee na mooy saafara su ci gën a gaaw du tee nag nga farlu bu baax def kem sa kàttan loo mën ba noppi nag boole ci ñaan yàlla nag ndax mu dimbali la yasxabu dana àndaaleeg cheikhan ab sëriñ xaarifal masaliki bi aji xam soobukaay ya maanaam bi aji xam yoon ya yàq yi dana ko fegal fii tariix yi ci aw yoonam almahalika alkande ya nee na itam bu fekkee mën ngaa gis ab sëriñ boo xam ne tàggatu na ci yoonu yàlla ba xam yoon wa nga ànd ak moom booy gën a gaaw di jéem a def sa pexe bopp ndax ka xam yoon wa moom dalay daal di teete lu la a yàqal rek mu daal la koy teel a xamal dimbali la ca ba dara du la yàqal ndax mu fekk na mu jaar fu ba jàll wi zikruhu kon dana ko fàttali allah yàlla ida raahu ndeem gis na ko wa yusilu te muy àggale alhamdu jaam ba ila mawlaahu jëm ci boroomam nee na nag bu mënee doon sëriñ boo xam ne saa yoo ko gisee rek gis nga képp dalay delloo ci yàlla dalay fàttali yàlla loolaay ciy gën su ko defee mu boo xam ne dalay mën ci yàlla ndegam yàlla la ci ñoom nar a àggale ca boppam sa bakkan ba xalal am faasi ca ko defee nee na itam foo toll na ngay xisaab sa bopp ba noowu génn rek fekk nga def ca topp yàlla maanaam bul bàyyi genn noo ci sa dund mu jàll te defoo ca lu baax ndax loolu boo bàyyee genn noo jàll jëfee ci lu baax bu ëllëgee ci àllaaxira danga ko rëcc lool wala sinu tamit peese alxaatira xalaat ga bil xistaas ci balaas ba nee na say xalaat foo toll dee ko peese ba mu tegu ci lu am njëriñ ndax dëgg la li ngay xalaat moom duñ la ko gaaw a bindul waaye nag dañuy wax ne xalaat yooyu moo lay ñor di jëme ci nga jëfe loola maanaam li xalaat rek boo tuur lee nga ko jëf ko kon nag da ngay seet li toq ci sam xel bu dee aw ñuul nga yéene mu yokku waaye ngay farlu mu yokku waaye li toq ci sam xel bu dee loo xam ne amul njëriñ rawante ne mënul aay ngay taxaw temm ci far fi saasa delloo sa xalaat ci leneen lu am njëriñ wa yaxfadu te muy wattu almafrooda lañu farataal rësal maali muy capital ba ko defee nag wan na fi lu naafila ga dana toftalee ribxahu tonoom tono mooy bénéfice am bi ci moom nee na li yàlla farataal ci yow danga koy fonk bu baax te gannaaw boo weesoo farata itam nga farlu bu baax ci yi nga xam ne yàlla bëgg na ko te farataalu ko ci yow tax na koo xaw a misaale ku mel ne kuy jaay ak jënd xam nga la wax capital muy la nga xam ne moom lay yor di ci jënd marchandise moom bu fekkee loola daa am rek kon xam nga am jaayam amatul njëriñ ndax moom boo xasee perte ci capital bi amoo dara ci bénéfice doy na sëkk ak perte nga sonn ci njaay mi ba noppi jëgg doom mu des fa mu bañ a tegal dara ci bénéfice waaye eh, la nga yoroon bu fekkee daa far manqué nga sonn ci ba noppi dara topp ca xam nga loolu moom pertement bu réeré la kon daa wax ne li yàlla farataal ci yow da nga sonn bu baax ba mat sëkk te gannaaw ba nag loo mën ci xeeti naafile yi muy xeet yu am njëriñ yi nga xam warul ci yow nga di ko bari lool ko defee mel ni mooy sa bénéfice ci boo doon jaayee ko jënd ne borom commerce sax ndax boo demee ci addis ba su borom dane man day sama jaam lépp lu mu def dara gën ca mu jiital laa farataal ci moom waaye nag gannaaw bu defee laa farataal ci moom nag bu saxee ci jege lu jëm si ci man di def xeeti naafila yi damay mujj rek daal di koy sopp te su ma ko soppee damay doon déggam ba nga xam ne ca lay déggee doon gisam ba nga xam ne ca lay gisee doon loxoom ba nga xam ne ca lay ñëbee doon tànkam ba nga xam ne ca lay doxee dal ne su ma ñaanee ma daal di koy may su bëggee ma musal ko ma daal di koy aar musal ko nga xam ne kon gis nga ni daal taxaw temm ci matal farata yi ak taxaw temm ci bariwul xeeti naafila yii ci la ab jaam war a farlu saa nekk loo yëg ko siiru te muy baril ak zikra tudd yàlla bi saf wi lubbihi ànd ak selluk am xelam nee itam jaam bi nay bari la tudd yàlla te bu ko dee tudd mu di ko teewlu wax ne ñett la bi ci féete kaw mooy muy tudd ci làmmiñ wi te xol bi di ko teewlu ba ca topp mooy xol bi képp di teewlu te làmmiñ wi tuddut ba ca féete suuf nag mooy tudd làmmiñu kese wi rek te ñu nee nañ tudd làmmiñu kese wi mat naa fonk bu baax a baax ndax soo ko bari lee dina yóbbu ci xol bi teewlu ko kon boo ko xeeb benn yoon su ko defee nag jàng alxuraan ak sikkar ak tudd xasaa yi teg yooyu maanaam jàng xasaa yi teg yooyu yëpp rek xeetu tudd yàlla la hmm. te sëñ bi waxal na ca masaaliku jinaan ne amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yukthiru maanaam lépp lu taalibi bi di bari rek saxoo tudd yàlla moo ci gën wal xaw nu dimbal la fii jamihi daa ci mboolem liw bi rabbihi nekk na ci boroomam nee na lépp nag day xaw a jafe waaye day dimbandikoo boroomam rek xam ne yàlla kum dimbale moom saw yan daal di woyof yu dana jihaar ak an nafsa bakkan ba li rabbil xaalamiin ngir buurub mbindee fi nee na nay góorgóorlu ci bari bakkanam xam nga bakkan moom li suñu war a wax ne inna nafsa la ammaaratum bisuu'i moo ci nekk maanaam bakkan moom di dugal rek ci loo xam ne dina amal njëriñ waaye ne jihaara bakkan bi ci di ko aw ci di dëgg te dañ koo topp ca la ko neex waaye taxallaa te muy takkaayoo bi maqaamaatil yaqiini ci maqaamaatil yaqiin nee na am na ay mbir ay melo yu ñu tuddee maqaamaatul yaqiin na farlu bu baax ci melowoo ko moom jaam bi yooyu nag mooy yi ñu wax ne nit yàlla yu baax yi ci la yéegi ba àgg ci seen borom yooyu nag dañ ko dañu wax ne juróom-ñeent la moom la boole ci wenn woywee xawfun moo di ragal yàlla raja ak yaakaar dangay boole ragal ak yaakaar ndax boo ragalee kese dangay naagu yërmande boo yaakaaree ba yaakaar ga ëpp itam dangay daal di sàggam ci topp yàlla daal ko ñemee mooy jàpp ne rek yow yàlla baaxe na la ba noppi wala du topp mukk li nga def kon dangay doog a ragal ak ak sant yàlla war ak muñ tawbatun ak tuub àdduna tawakkulun ak wakkiirlu ci yàlla ridan ak gërëm la yàlla def mu neex la hmm, mooy ridan la def rek mu neex la mahabbatun ak sopp yàlla yi boo weesoo xaw foog rajaawu sant moo ca topp muñ topp ca tuub topp ca dëddu àdduna wëkkil lu ci yàlla lu yàlla def mu neex la ak sopp yàlla yooyu nag des na ko gën leeral ci téere tasawuf yi kenn ku ci nekk ndax kenn ku ci nekk bunt la bu yaatoo yaatu yes duq dana dëggalal shaahidahu yàlla mi aji seere ko fil muhaamalati ci jëflante ga nee na ko wóoru ne moom jaam bi yàlla la jëflanteel te yàlla moom dara ump ko lu jaam bi def rek bu sell leen bu sell luñ moom yàlla xam na ko kon nag lay bàyyi xel ki mu jëflanteel te kenn mënu koo nax yaram baa dana gërëm itam bi maa ci la nga xam ne xat dara xoo dogal na ko al ilaahu boor bi la xoo ñeel ko xam nga tuddoon na ridan gërëm la yàlla dogal ci yow ne nag su boobaa lépp lu yàlla dogal tam moom moom jaam bi na nangu rek lépp lu yàlla dogal xam ne yàlla moom lépp nguurama moom moom jaam bi moom moom lépp lu ko ci soob rek lay def kon nag lu yàlla def rek na ko jéem a gërëm mu neex ko su boobaa nag yasiiru dana mujj indi zaaka fa loolee xaarifan di aji xam bi ci boroomam xorran tey gor waxee rëbootu yi dul yàlla xalaa wóot na min xal bi ci xolam ba nee na ko defee day mujj nekk di ab jaam boo xam ne kumpaam day deñ ci digganteem ak boroomam su ko defee mu doon jaamu bi yàlla kese leneen du doonati ab jaamam maanaam du nekkati jaamu bakkanam mbaa bànneexam mbaa seytaane mbaa adduna mbaa dara yàlla kese rek lay doon nga xam ne ab jaam la waaye yàlla dong moo di ab sangam leneen du ab sangam fa xabbahu te sopp ko al ilaahu buur ba wastafaahu te mu tànn ko li xadratul xuddoo si jëm ci péyub sellaakoon ba wajj tabaaxu te mu taamu ko mën nga ne te mu ko waaye mën nga ne te ko yeneen yi bu ko melee day mujj yàlla sopp ko mu nekk ab jaamam bu yàlla sopp maanaam mu nekk jaamu bu yàlla bu yàlla sopp yàlla tànn ko taamu ko boole ko ci ñoom kon loolu foofu la téere bi yam mu ne nag dal bi la kenn nobb man mbir mu mbiri away laa yëf du matale bi nga xaayati ca dayo ba wa fi la si waaye nekk na ci li nga xam ne jëkkër bu tudd naa ko kifaayatun ak doy téere bi daa jeex mu ne li ma indi kat xam naa ne mënta jeexal xam-xami diine ndax xam-xami diine daa yaatu waaye nag nee na ku lii mu indi ku ko toppatoo bu baax a baax rek mën cee jàpp fekkee am ko ak yaatu nag nga yëg jëm kaw waaye li mu indi daal nee mënees na cee doyloo ay bayaatu ay bayitam arbaxatu xashara fukk lañu ak ñeent tasilu oo danañu jokk maxa salaasi mi etin ànd ak ñetti téeméer xar du mursali te mooy limuk wanante yi nee na bayiti boo ko dee wàññi day doon ñetti téeméer ak fukk ak ñeent mu tolloog limuk wanante yi limuk wanante yi dañ cee wéeru daa am ñu wax ñetti téeméer ak fukk ak ñett am ñu wax ñetti téeméer fukk ak ñeent ni ki mu waxee moom nii am ñu wax sax ñetti téeméer fukk ak juróom waaye boobu wute taxu ko am solo sammaytuhu tudde naa ko bil murshidi ci aji jubal ja almuhini ja aji dimbalee xalat daroori yi ca la mënta ñàkk min xuloo mi diini ci xam-xami diine noonu laa koy boo xam ne moo lay tegtal di la dimbale ba nga xam la nga war xam te mënta ñàkk mooy li nga mënta ñàkk xam ci sa diine mu dimbale la ba nga xam ko loolu la téere bi def teew na ñu ko ibnu hashir waaye moom noonu la tuddee téere bi al murshidul mooyin xalat daroori min xuloo diin fa asalu danaa ñaan man rabbinaa ci sunu borom bi jaayi sayyidi anaami ci daraje sangu bindeef yi maa ngi ñaan sunu borom an nafa jëriñ xeetu yonante bi bisi ci téere bii xalaat dawaami ci sax anee day ñaan yàlla téere dañ koy sax di ko jàng di ko jëriñoo ba faaw xadintaha jeex na moom bi walhamdu cant ba lillahi ajoy la ñeel yàlla alxasini kay aji màgg salla yàlla na tedd nga wasallama te mu dolu woolu xalal haadi ci aji jubal ji ak karimi ci aji tedd nee téere baa ngoon mat na mu ngi delluwaat di sant yàlla te julliwaat ci yonent bi ko defee rek képp ku déglu eh, kaset yi téere bi loolu ci jaww ji lu mu néew néew ñaanal ki ko def yàlla jéggal ko defal ko yërmaande àdduna ak alaaxira defal ko taalibe bi gën a taamu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 وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين kaset bi danu ko fas yéene defal ñi bëgg a dem Makka ku fas yéene dem Makka nag lu ca jiitu moo di war naa wàcc bu baax a baax la jiitu ca waaj ma moo di lu dox digganteem ak doomi aadama yi mu leeral ko bu baax balaa dem ba tey it lépp lu mu bëgg ku ko ko defal bu génnee àdduna na ko wax ba mu leer bu ko mënee bind sax sàkkal koy seere moo gën ndax yàlla moo xam bakkan bu ne waxtu koy fab ak fa mu koy fabe mu farlu bu baax itam ci alal ji muy aje ji jëpp moo xam la muy paase la moo xam la muy jëfandikoo la lépp nekk alal ju leew ndax li ñu wax ne ku aje ji alal ju araam su waxee labbayka dañu koy wax ni ko déedéet yow amoo fi labbayka sa aj googu kenn du ko nangu dañu la koy delloo ba tey mu farlu bu baax ci waaj mi ak yitte yu bari yi ak bu nekkee ci yoonu aj gi genn julli farata bañ koo raw ndax julli moo gën a màgg ci lislaam gannaaw gëm yàlla dem naa dem ba nga xamee ne guddi gi nga xamee ne mooy guddi fukkeel ci weeru gi ñu war ci taxaw arafa nga xam ne waxtu taxaw nga ma nga tàmbalee ci fa jant ba soxe yem ci fa fajar fenke nga xam ne ku taxawul ci diggante boobu rek arafa aj raw na ko bu déwénee mu ñëw fay si ko bu fekkee ne moom dafa julli wutoon gee yeexe ko julli ba guddi googee fajar di bëgg fenk nga xam ne kon du fi nekkee di julli gee taxaw arafa raw ko du fi nekkee di taxaw arafa itam gee raw ko su boobaa day war a julli gee te bàyyi taxaw arafa raw ko su ko defee nag bu déwénee mu ñëw fay si waat aj gi noonu la ñu jiitale julli ci mboolem xeeti jaamu yàlla yépp kon nag na ci farlu bu baax a baax tax tam bu dee jigéen na farlu ci àndak ab araamanteem ndax dañoo boole ci sart yi tax jigéen war a aji mu am ab araamanteem bu mu àndal nga xam ne bu amul araamante boobu rek aj ga wàcc na ko bu dee ci yoonu Maalik nag xaw nañ caa def ak jàppandal bu dee ajug farata moom te mu am àndandoo yoo xam ne yu ñu wóolu lañu moom jigéen ji ci boppam nekk ku ñu wóolu kon mën naa dem ba tey bu dee ab taalibe mbaa muy kuwut lu baax rek fu mu ko gis na fexe ba yóbbuloo bayit yi nga xam ne Sëriñ Tuuba moo ko def te tënke ko muhammadukal jamil ndax bayit yooyu bariwut ci wenn kayit rek lañ koy bind mën naa nekk kayit bu ndaw sax du aajowoo mu di ko takk day fexe rek ba fu mu nekk ci Màkka ak Madina mu ware ko ndax sëñ bi daa wax ca suuf bayit ya ne wahab للحامل هذه الحروف ما يريده في مكة والمدينة بلا آفة ولا قدر آمين يا رب العالمين واجعل هذه الأبيات زادا مبلغا يا قدير يا قادر يا مقتدر إلى بيت الله الحرام وإلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل صلاة وأنمى تسليم amin yaa rabbal alamin suñ bi daa ñaan boroomam képp koo xam ne fexe nga ba yore araf yi foofee ca Makka ak Madina lépp loo fa bëgg rek yàlla may la ko may gu set wecc gu raxul dara lu ñu taamuwut te ñaanu sëriñ bi lu ñu nangu la kon nag na fexe ba yóbbaale bayit yooyu lem ko rek bu ko mënee jàng baax na bu ko mënta jàng it bu ko jéem a defub di ko takk waaye na fexe rek moom ba yore ko ba tey na farlu bu baax ci yóbbaale ñaan gi sëñ bi def ñaan gi sëriñ def ci bisub arafa tàmbalee xam man li man akmala yowma arafa diina nabiyil mustafa wa sharafa na fexe ba yóbbaale ko bu taxawee arafa ñaan ko fa waxtaan wi nag dama koy teg ci yoonu al imaamu malik bu ko defee itam nu fàttalee ne képp koo xam ne ab bi la Sëriñ Tuubaa da ko jox ndigal lu wër ci mu tënku ci yoonu al Malik ndax daa wax ne su ngeen ma gisee may def loo xam ne gisu leen ko ci téere yoonu Malik te digaluma leen ko bu leen ma ca roy yéen ma ngeen tënk rek ci yoonu Malik moom laa leen digal kon nag ab taalibe bu amee lu muy laaj day wax ka muy laaj ne ko man kat Sëriñ Tuuba dama digal yoonu al imaamu Malik mu bëgg nga wax ma la ci wér rek loolu doom laa soxla kon nag li ñuy wax noo ngi koy teg ci yoonu al imaamu Malik yoonu al imaamu Malik nag ñu bari ci fir ci soowu jant ci lañu nekk benn ñu tënk ci bu wér a wér baa ñu koy jaxasee leneen waaye daal bari nañu ci nekk waxtaan yu nag nii lañu ko bëgg a tegalee dañuy njëkk wax lan moo di àtteb aj ak xumra ci lislaam teg ca faratay aj ñu neexee tudde ko ay ponk teg ca warigar yi warigar li ko wutaleeg farata daanu ko wax bu nu ca tolloo teg ca yi nga xam ne boo xasee armal moo xam dangaa armal aj moo xam dangaa armal xumra dañ la koy aaye araamal ko ci yow ba kera nga yeewi ko yooye daañu ko ci teg bu yooyu jeexee nag ñu door a tegale jëfi aj bi na mu tegaloo nga xam ni loo def xam la nga cay teg ba kera ngay noppi li nga xam ne moo ci njëkk mooy àtte aj ak xumra ba suñu borom ne wa atimul hajja wal umrata lillah dafa lëkkale yaar yëpp ne matal leen aj ak xumra loolu leen yàlla digal waaye daanaka xaw nañoo marché ne bukk ñu àtte aj màkka moom bu fekkee ne kooku jullit la te kàllafe te amul ngànt kon aju màkka benn yoon ci ab dundam yoon rek bu farata wàcc ko bu ko soobee nag di ajuwaat kem kàttanam muy ajum la waaye gu jëkk ga rek mooy farata ci moom umra itam xaw nañoo maase ci ne sunna la nga def ko benn yoon ci sa dund boo si def benn yoon nag bu tee ñu boo ko mënee at bu nga umra bu ko defee mu la ñu sopp waaye lu àgg ci sunna umra nag boo mënee góorgóorlu ba def ko ci weeru ramadaan mooy gën ndax li wér ci wax yonante bi mu ne umra ci biir weeru koor wecc na aj màkka xam ne kon umra ba def ko ci weeru ramadaan lu rëy rëy day wecc ak aj li ci topp nag kon mooy faratay aj yi